adduna yow jëf ji nu def yaa mën a wor te a kaaf loo mën a génne duñu saaf yàq nga loo defar yaa ñàkk ngor te a wor gàddu nga làq bépp ngir jël nga kiñ amoon ci mbar yàq nga loo defar ku def ci nun lu baay deful ku def ci nun lu yaay deful askaani jaay ak pim gisul adduna yaa bon ñàkk ngor waa Sénégal jug leen ta waaj negam ka daa jox waaju laaj bafar joxaale ko du laaj moo xëy mees kenn du fi sar tarbiya mi ngi jooy tarxiya it nee na wooy xuraanu jooy tawbatu jooy kenn gisatul ki leen di أي واجف بزيت نتوقع من القدار كنيت